alhamdulillahi rabbil alamin wala udwana illa ala adh-dhalimin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa mbokk yi ñu ngi dellu si waat di sant sunu borom subhanahu wa taala ñoo ngi koy bàkk di ko kañ ci mboolem xeeti tur ak melokaan yu sell te yi nga xam ni ak jagoo ci suñu borom subhana ñu ngi dajewaat ci daje yiñ doon def di ko jagleel delloowaat jaami yàlla yi ci pas-pas bu set bu dëppoog la yonent bi doon fab sallallahu alayhi wa sallam pas boo xam ni moom mooy gaal yonent yàlla nuux ci jamonoy tuufaan amul werante ci ni gaal ak nuux ci jamonoy tuufaan ku ca yéeg kookaay ko mucc waaye ku ko wàcc de kooko sànku na loolu mooy pas-pas yawma la yanfau maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim bi sa ngi ñëw boo am ne alal du jariñ nit ki foofa dara ay doom yu bari tamit du ko jariñ waaye la koy jariñ mooy xol bu setee pas-pas comme la yonent bi façon ak ay saxaabam yàlla na yàlla defal lu ko nu ngi dellu si at ñaareel bi yoon ci nettalib masiixu nañ ci ay mbir waaye gën a tekkaloo xadis ba yonent yàlla gën a sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci mandarga yi wane ne masiixu dajjal mi ngi waaj a mooy nit ñi dañ koy fàtte di waxtaane waaye aima yi tamit dañuy fàtte di ko xutbaa ci kaw minbar yi kon masiixu dajjal jaadu na jullit ñi xam ko xam ku dëppoog na ko yonent bi jàngalee sallallahu alayhi wa sallam te ñu xam ni nekkul luy wane mbon gu tasaaroo waaye jëmm la ju am fitna la ju am comme ni nga ko nar a xamee te yonent bi nettali ko sallallahu alayhi wa alihi kon ñu xam ni ak lu mu raglu raglu jaamu yàlla yi nañu ànd ak ak dal te xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam melal na ko xeeti melokaan boo xam ni ci gën jaa dali melokaan ci gën jaa tew te leer ay melokaan yo xam ni képp koo xam ni bi la fi masix dajal di fekk fekk na fi ak pas-pas bu set te leer insha allahu di nga xam ni kii mooy masixu dajjal tey it yonente bi jox na loo xam ne moom ngay defa mucc ci ay fitnaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ku jàng ak ku jàngul yépp fii nit ki pas-pas bu ma nga ci xolam yàlla dana ko defal tawfiq ci fitna yi masiixu dajjal mucc ci yonent bi sallallahu alayhi wa mi ngi wax ci xadis boo xam ne mi ngi ci Buxaari mi ci Muslim yonent bi nee na Abdullah ibn Umar di ko nit li mu ni benn bis sama borom daf maa wan ci nelaw muy gént te xam ngeen ni gént ak yonent comme ni ma ko waxee lu bari bokkul ak ndax ru'yal anbiyaa xaq gént ak yonent dafa mel ni li am ba noppi la ko sunu borom di wan wala li war a am mu di ko nettaliwaat mu ni damaa gis ci samay nelaw may wër kaaba gi may wër kaaba gi ba mu yàgg ñu ne ma siggil nga xool kële ma siggi xool ko ndeke kiñ may wax ni xool ko kooka Isa la ibni Maryam moom it muy wër kaaba gi yonent bi melal ko ci ay melokaan melokaan yooyu incha da dana ñëw ca nettali masiixu dajjal fa ko Isa di rey waaye ma jékki-jékki am yàgg ñu ne ma sikki waatal ma sikki xool ñu ne ma gis nga kële mu ne ma xool gis benn waay boo xam ni ndekete kooku mooy masiixu dajjal mu ne fa idaa huwa rajulun jasim mi ngi nekk waaju punkal ahmar couleur bu xonq la yore jaadu ras kawar yi bopp bi dafa cuqaaral taxaw mel ni ay flèche awarul ayn bët yi dafa bat mu ne ka anna aynahu aynab ka anna aynahu aynabatun taafiya dafa mel ni ab bët bët ba dafa mel ni ab doomu raisin bu ñu tëmbal ci ndox ñëw na ci yeneen riwaaya yu dut yi te mi ngi ci muslim yéen ci yàlla mu ni ka annaha nuxaamatun fi xaa'id dafa mel ni ab xaastandiku bu weex tàll boo taf li ci miir bu ñu laso mu ne boo xoolee xaastandiku ba nam cey càppee mu ne boo xoolee benn bët bi noon la mel yéen ci yàlla bi neen ba mu ba yeggal saxaaba yi ni ko yaw de ki nga wax ak waa jii di euh, euh, ibni qatal nga xam ne mi ngi dëkkoon ci giir gi ñuy wax ñu ni ko yonent bi da yow kii nga nettali ak ibni xatam ñoom ñaar kiif kiif ñoo nuroo beneen xadis a ngi nii Buxaari Muslim ñu ngi koy nettali ñoom ñaar ñëpp ku nekk mi ngi ko nettali ci kitaabul fitan xam nga boo delloo ci Buxaari nga delloo ci Muslim wa kadalika téere yi sunan yi da ngay fekk ay buntu yoo xam ne dañ koy tuddee kitaabul fitan téere yi wax ci wàllu fitna fitna yooyu boo ci delloo da lay nettali mboolem mandarga yi nga xam ne yonent bi jàngale woon na ko sallallahu alayhi wa sallam te muy wax ci jeex jamono bala alxaafis ibnu kathir dafa taalif ab téere tuddee ko an nihaaya maanaam nihayatul aalam ginnaaw mu taalif ab téere tuddee ko al bidaaya loo xam ni ma nga tàmbalee ca àdduna ba fa mu commencé yonent yàlla yeeg fa yàlla jaar ak ba mu tàmbali waa ba ci jamono moom alxaafis ibn kathir fa mu yem ca jamono nag fa la tàmbale ba keroog àdduna bi tukki booba téere la tuddee an nihaaya muy boo xam ni boo ci delloo lii ma nettali ak yeneen yoo xam ni ay xew-xew la yuy xew ma ngi koy nettali ci téere boobu ñoom ñaar kenn koo ci dem ci buntu boobu mu ubbil kitaabul fitan ñu toxal jële ci Abdullah ibn Omar ñu dëppoo ni yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam benn bis dafa tudd dajjal ci nit ñi maanaam daf doon waxtaan ak saxaaba yi mu tuddal leen masiixu dajjal nee bi mu ko tuddee muy inna allaha taala ni yàlla seen moom pattut ku mat la mu ni ala wa inna almasiixa dajjal aawaru l ayn al yumna masiixu dajjal ba taf ndeyjoor ba daa mu ni bët bi dafa mel ni doomab raisin boo xamante ni da nga koo sànni ba muy tëmb ci am ndox abi daawud de sunan mi ngi nettali te xadis la bu wér ñu jëlee ko ci ubaadata ibne samit mu ne yent yàlla bi ne addajaalu rajulun qasirun ashaj masiixu dajjaal dafa gàtt masiixu dajjaal dafa rink masiixu dajjaal dafa ci xaaral kaayri bopp masiixu dajjaal dafa patt ak bët masiixu dajjaal boo dee bët ba nekkut lu génn lool laysa bi naajatin wala xajra mooy nooxut ba bët bët ba noox waaye génnut waaye dafa mel lu xaw a maati ak euh, fii paxum bët mi di nekk yent yàlla mu ne fa in ulbisa alaykum su amee menn lënt mu leen nar a ci mbir masiix dajjal génnal ca lënt moomee te na nga cay génne mooy xamal ni anna rabbakum laysa bi aawar seen borom yàlla nekkul ku batt imam ahmad mi ngi nettali ci musnad ci xadis boo xam ne xadis la bu wér abi hurayra di ko nettali yonent yàlla mu ne wa amma masihu dajjal dajjal wala masihu dalala fa innahu awaru layn masih mi nga xam ne day sànkaate kooku de bët bi dafa pat mu ne ajlal jabha jëbu rëy la yore waaye bokk na ci li gën a tax jëbu rëy mooy dafa leer masihu dajjal dafa gàtt dafa punkal dafa xonq dafa rinki teyit dafa leel waaye leel bi tuuti la moo tax jëbi yonent yàlla mu ne boo xoolee kawar gi mi ngi nekk kawar goo xam ni kawar gu sëq la waaye cuqaaral mu ne aridu naxar dafa rëy ginnaaw gi dafa rëy ma masiixu dajjal mu ni fiihi dufun maanaam dafa am li nga xamante ni mooy ak jéng jéng dafa dëng maanaam ginnaaw gi dafa runki sallallahu alayhi wa sallam imam muslim mu ne ba léegi mu nittali ci kitaabul fitan ci xadis boo xam ne xusaybat ibn yaman moo ko solo mu ne yonent bi nee na masih dajjal aawarul ayn al yusra jufaalu shaar masih dajjal sànq liñ doon wax lépp muy bët bi dafa bat waaye même beneen bët bi tamit mu ne dafa am sikk waaye mu ni cufaalu shaara mooy kawar gu sëq la bay direeku moom la yore imam muslim di nettali ci saxi mook buxaari ci xadis boo xam ne anas ibni malik moo ko solo yonent yàlla mu ne wa inna bayna aynayhi maktubun kaafir jëbi dafa rëy boo xoolee ñi ngi ci bind kaafir mooy ab yéefar am na riwaaya boo xam ne dafa maktub bayna aynayhi kaaf wa faa wa raa maanaam daf koo teqale kaaf ak fa leen loolu kaafir la am riwaaya boo xam ne dafa wax kaafir mu daal di boole li nga xam moom mooy baat yi moo tax al imaamu nawawi moom sharh sahih muslim ba mu yegsee ci li ëpp ci borom xam-xam yi wala li gën a dëgër ci waxu borom xam-xam yi mooy mbind mii mbind mu am la nekkul ay léeba ki lupp nekkul comme ni ñuy wax na sax dajal ramz la pour mbon kese déedéet wooye mu ni am mbind la comme ñi ngay gisee mbind muñ bind ci tableau wala kaye mu ni yàlla soo tala mu nekk kaawteef ak kéemaan ngir jaami yàlla yi suñ ko gisee ñi nga xam ni nar na ñoo texe ñu xam ni kii mooy saay saay ba ñi nga xam ni naru ñoo texe yàlla nëbbu leen ko ba ñoom duñ ko mën a gis nee na loolu nag moom lenn lu ci garaaw ak lu ci nekk kéemaan ba nga koy dàq waru cee mën a am ndax yàlla ala kulli shay'in qadir te loolu mooy di wenn moo tax imaam ju mag ibnul arabi mu ni boo seetloo sax masiixu dajjaal melokaanam yu doy waar yii melokaanam yu doy waar yii ci ay naq ci ay manqué manqué dafa gàtt dafa xonq dafa rinki ah diggante mbaggam day joor meeg mbagg ma ca def dafa sore dafa cuqaaral kawari bopp dafa leer jëbi rëy kawar gi nekk lu gudd lool bët bi dafa pat boo xoolee ñu ngi bind kaafir ci fi nga xamante ni mooy jëbi mu ni melokaani sikk yii wax dëgg yàlla kum daje ci yow nit ñi war nañoo xam ne maxkumun alayhi fi nafsi kii daa am ku ko def noonu waaye su fekkoon mooy defaate kon moom du def boppam noonu moo tax foofu laay waxee ni wax dëgg yàlla nag la nit di amee di xalaat koo xam ne day woote woo yàlla te bokk na ci kéemaan yi ma masiix dajjal su suy feeñ du tàmbalee woote woo yàlla déedéet ak mbaax lay woote woo ak ragal yàlla nit ñi di ko dox ca loola mu dem ba mu yàgg mu ñoqale di woote woo ak yonent mu dem ba mu yàgg mu ñoqale di woote woo yàlla subhanahu wa nii la ñëwee ci ay riwayat boo demee ci kutubu sunan yeeg si xaa yi ko ci fekk kon su nekkoon ci ni moom yàlla melokaan yu manque yooyu mu def da koy dindi mooy li may wax nit ñi nit ñi ci bopp dañoo war a toll fu ñuy xalaatee koo xam ne dañoo jàpp ni moom li mu wax mooy tax mu am su su nee day am mu am su nee du am du am koo xam ne bu bëggee mu taw mu taw bu bëggul mu taw mu taw dama ni su fekkee nit am na loolee sifaatu naqs yi doomu aadama am da dindi dindil boppam yàlla dafa def doomu aadama mu muy nelaw di xiif di gëmen di manque di sonn di wacc di feebar di siburu di jëm wanag ah di jàpp di jàq di jaaxle di tiit comme ñëpp ndax nit la waaye képp koo xam ni yàlla dindil na la melokaan yooyu yëpp amoo ca benn laa taaxudu sinatun wala nam ku amul fenn yàlla rek la am subhaanahu wa taala kon yàlla ci boppam moom mooy ku màgg waaye loolu nit waru koo mën a nangu beneen bi ci des xam ni yàlla ci boppam kuy dund la ku teet la dafay nekkoon caayi amut fu mu tàmbalee dafay ne ma faaw amut fu mu yem te bul melal benn melokaan lu dut lam melal boppam wala ab yonent bi melal ko sallallahu alayhi yàlla di ko am kàttan la waaye ko man lépp la moo yilif ñëpp moo moom ñëpp la meyoon ni moom yàlla keneen du yàlla mbërëm moomu ñuy tuddee dee moom la sunu borom ci la rëqee ndiggal képp ku doon bërbërlu moo tax si yàlla moom rek la ñeel mbërëm moomu ñuy tuddee dee moom sunu borom ci la dogee mbébéti ñi nga xam ni ñoo doon yor projet yi àddina yu mag yi moo taxit sell moom kese la ñeel mbër moomu ñuy tuddee dee ci la toxalee ponkal yi ci biir pale yi ñu génn ci pale yu yaatu yi dem ca faxum bàmmeel mu xat ma génnee ci leeraayu làmp yi dem ci lëndmaayu bàmmeel ba tàqalikoog soxna yeeg mbindaan yi nga xam ne yaa leen yilifoon war a jànkonteel ay sax ak ndunda ci biir armeel war a génn ci ay xeeti bànneexi lekk ak naan waaye war a dancanoo ci fi nga xamante ni moom mooy suuf si kay def loola ñëpp kooku rek la sell ñeel mooy yàlla subhanahu wa taala moo tax laysa ka mislihi shay dara melul ni moom sunu borom déglul bu baax dara melul ni sunu borom loo xalaat ñun la dara melul ni moom ba pare mu ni wa huwa samiul basir sunu borom day dégg day gis su borom ni woon day dégg day gis balaa mu laa wax dara melul ni moom su ne day dégg day gis rek automatiquement sa xel di xalaat waaw kon dégg nga nu mel kon gis nga nu mel waaye gis nga alquran alquran wax ju jot la baliir ndax tanzil min rabbil alamin doomu aadama ci boppam pour yàlla takkum xelam ci bunt bi danañ ko laysa ka mitlihi shay dara melul ni yàlla ba nga toog amul benn image boo koy jox mu doon lay wax wa samiul basir day dégg day gis wax dëgg yàlla bu dul dog na bu ñu la dara ni moom ba amul image boo ko jox buñ nee la day gis wax dëgg yàlla déggam ngaa gis nga nag bu ko jox beneen image bul ko nuralee kenn ndax melul ni kenn laa tudrikuhu l absar wa huwa yudriku l absar yàlla ci boppam bët du ko gis fii ci àddina fa wallahi rabbil kaaba amul benn doomu aadama ak kum a doon ci kaw suuf koo xam ni dana gis yàlla fii ci àddina wala sax ca àllaaxira laa wax xatta yadxula aljanna jaalana allah wa iyaakum min ahli aljanna yal na yàlla booleen ci waa aljanna yal na yàlla booleen ci waa aljanna wallahi amul kenn ko xam ni <laughs> léeg-léeg da ngay nit ñi nga dégg ay ay mbooloo damay damay damay wax baat mu leer ndax dañoo nekk ci buntu jàngale Sénégal gis naa fi ay xeeti mbooloo yu ñu tuddee yàlla yàlla man damay wax ni wax dëgg yàlla suñu muusoon sax dañuy tàmbali fa xanaa boobu ñu commencé ci yonoon yoneen sax xanaa boobu waaye jéggi nañu yonent sa salaam léegi yàlla yàlla la ñuy wax maanaam mooy lan mooy koo xam day gis yàlla wallahi loolu amul wallahi rabbil kaaba fa wa rabbi muhammad ku la wax ni dafay gis yàlla kooku dafay kàcc ak kum mën a doon kum mën a doon laaw kum mën a doon ak kum mën a doon ci kaw suuf kooku dafay kàcc wallahi lan tarawna rabbakum hatta tamutu la tudrikul absar su dee yow da ngaa gëm ni da ngay gis yàlla wala nga gëm ni am na koy gis yàlla wallahi laqad kafarta bi rabbik weddi nga yàlla ndax weddi nga alquran wa man kafara bil qur'ani faqad kafara bi rabbil qur'an ku weddi alquran weddina borom alquran muy yàlla la tudrikul absar yow nee nga da ngay gis yàlla way wax dëgg yàlla yéen xel mën naa nangu waa joo xam ne xutumal la ba mel ni man xamut dara ay bagaasam dara da cay doyut ay nelawam doyut muy xëy di liggéey amul am fa muy liggéey ñu dàq ko fa muy am ay jafe-jafe feebar barki dem ñu lëng ko fii yóbbu ko hôpital kurus gi mu doon wax da koy gisee yàlla sax buy dem hôpital ci kër ga da koy bàyyi ñun day gis yàlla kooku bu doon gis yàlla dafa mu faj ko loolu amut nit ñi dañ doon xalaat bu doon xalaat xam nañ ni loolu amut amul kuy gis yàlla léegi yow wala ki nga wax day gis yàlla kooku dafa gën Moussa allahu akbar Moussa wa kallama allahu Moussa takliman Moussa àggoon na ci am daraja yi kawe yàlla danaan Moussa Moussa ni naam sunu borom di wax ak moom kàddu gi yàlla yi wax ak Moussa dafa neexoon ba Moussa buy bu yàlla ne Moussa am nañu rendez-vous barab sàngam Moussa day daw bu ko yàlla ne Moussa wal sa xel yi mu ne waa ajiltu ilayka rabbi li tarda dama bëgg nga kontaan rek moo tax may dawi xel am ku am dayo la ca yàlla dama ci jeexital suratul ahzab wa kaana inda allahi wajihan Moussa keroog ba mu ne dafa bëgg gis yàlla sunu borom ni ko Moussa bul sonal sa bopp lan tarani man yàlla dee su ma gis kat wax ko lam ñi jàng lu nga xam ne dañuy wax al farq bayna lam walam diggante lam ak lu fa dox ñi jàng lu la laa ko arab xam nañ ko wax ko sax lam lan la ko lan xarfu jazmin ila al abad doo ma gis cay mukk Moussa bëgg naa gis yàlla ndax li muy dégg neex na te sañoon di gis li muy dégg sunu borom ne ko undur ila al jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani billahi alaykum montagne ak doomu aadama lu gën a dëgër montagne a dëgër foofu sunu yabal cop leer ca montagne ba ba ba ba leer ja nee prox ca biir montagne ba montagne ba ni tasar Moussa ni jàngat daan xëm gis nga ba mu tuub ba mu ximmili ko xam nga la wax subhaana tuub naa ko subhaana tuub naa ko seetla tubtu ilayka naa ko ndekete damaa gis yàlla ëpp naa génn ci gémmiñ kenn du ko wax allahu akbar subhaana tuub naa ko seetla yow yàlla tubtu ilayka tuub naa ndekete damaa bëgg a gis yàlla kenn du ko wax ndekete yoo dootuma ko waxati su fekkee Moussa moom it noonu ak ji mu am ak ji ko yàlla jox ah nga xam ni suñu yonent sax sallallahu alayhi wa sallam dafa naw yonent yàlla Moussa alayhi salaam mu ni amul kenn ku tàq muñ Moussa mu ni Moussa lor nañ ko lor boo xam ne bu doon keneen na nga fayu kon mbokk yi yàlla ci boppam kenn du ko gis ci kaw suuf déedéet loolu amul booy wax waxal la neen booy sikkar sikkaral booy ñaan ñaanal booy wax say affaire waxal say affaire waaye li nga xam ne yonent bi jàngale na ko mu leer alquran saxal ko mooy yàlla kenn du ko gis fi dunya wala fil axira illa an yadxul aljanna alaxira doo ko gis lu dul dangaa dugg aljanna noo ñaan yàlla subhanahu wa taala mu boole ci waa aljanna mbokk tomb ak ñetteel bi mooy nañ xam ni masiixu dajjaal fi mu nekk nii mi ngi dund fii may wax ak yéen mi ngi dund juddu na askan juif ca la bopp du am doom bu ñëwee ci kaw suuf fii may wax ak yow ca barab bam nekk ca penkukaayu jant bala ndax rot na ci bu wér te imam muslim soloo ko yonent ba muy nettali mi ngi joxañ ci fenkukaayu taw bi te naan fii la nekk fii la nekk fii la nekk ba yoon ci benn géej la nekk ci benn île lan mooy tegtal ci li may wax mooy am na benn saxaaba bu ñuy wax tamim ad-daari boo xam ne gis na ko benn bis Fatima bint Qays mooy nettali riwaaya bu gudd la maa ko tënk waaye ndaw si da doon ténji nee na bi ma ténjee ba sama ténji gi jeex ma war a ñibbi sama kër rek dégg wootekatu yonente bi naan ak salaatu jaamia kaay leen daje jàkka ji ñoo leen daje jàkka ji mu ne ma gis mbooloo mi dem ah may ma topp ca mu ne bi ma demee topp ci daal di ñëw toog ci kaw minbar bi daal di reetaan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mu reetaanee daal di sahaaba yi ku julli ba noppi fi nga toog bul bouger fi nga toog toogal foofu est ce que xam ngeen lu tax ma dajale leen sahaaba yi ni ko déedéet ñun di xamuñu lu tax nga dajale dajalewu ma leen ngir lenn lu dut tamimu daar yi ñii ngeen seen mu toog dafa ñëw léegi ci ab ku dul jullit la woon mu tuub dugg ci lislaam ñëw netti li ma loo xam ni ak li ma leen doon netti li ci masiixa dajjal kiif kiif la yonent bi doon wax saxaaba yi ci masiixa dajjal ca Màkka ba ca Madina tamimu daar yi tey la tuub te bi mu ñëwee ni ko man gis naa loolu yonent bi daal di yéemu ci nettali boobu sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ni ko nettali tamimu daari daal tàmbalee nettali mu ni dañoo yéegoon man ak fanweeri nit ci benn gaal goo xam ni gaal gu mag la giir gu ñuy wax mu ak giir gu ñuy wax gisaam ñoom ñoo bokkoon gaal gi yéeg dem di liggéey ci géej gi nee na bi ñu demee ci géej gi yàlla yebal ngelaw lu foor ngelaw loo xam ne baage na gaal gi ba ñoom jàppoon nañ ni foofa la seen àllaaxira tourné leen gëlëm loo leen réer loo leen ci géej gi xamatuñ fun jëm xamatuñ fun jóge nee ñoom ñëpp ñu toog ci kaw gaal gi jaaxle lool gaal gi demew yoonam di demew yoonam ba benn île gaal gi teeral fa boppam mel na lu yàlla yebal benn île ci biir géej gi benn jasiira nee bi ñettee ci île boobu ah, am na xeeti waruwaay yu ndaw yu ñuy ba tegaale ci gaal yi pour buñ wàccee bëgg a dox seen soxla mu ne ñu wàcc daal di dugg ci biir île bi nee na biñ dee yënn ci île bi dañu gis benn daaba bu jàkkaarloog ñun di ñëw ñoom xamuñu fas la xamuñu mbaas la xamuñu bëy la xamuñu nit la xamuñu lan la li tax xamuñu lan la mooy xam nañ ni daaba la waaye karaw gi dafa bari lool mu ne laa yudra xubuluhu min duburi boo ko jàkkaarloo moom muy ñëw doo xàmmee kuy kanam nga ak kuy ginnaaw gi ndax karaw gu bari mu ngi direeku ñun daal seen nañ ko mi ngi nii di ñëw daaba la xam nañ waaye xamuñu lu mu doon nee na ñun ñëpp ñu daal di koy arab ni ko yow de toskare ñeel na la daal di wax ak waa ji di ko mu ne anal jassaasa man man agent secret laa bu mat sax ñu ni ko waaw luy loolu mu ni lii loolu mooy su ngeen jaaree fii ma leen di joxoñ am na ko fa nekk ñu yeew ko yeew bu dëgër kooka day aajo woon a information yu bàyyikoo ci yéen dem leen ci moom mu ni bi mu tuddee ab waay nag dañoo tiit sax jàpp ni kii moom ab saytaane su mag saytaane la ah comme mbooloo lañ fanweeri nit lañ ñu daal di waaxu dugg ci xunt mi ñu wax nee na dañ duggee ñu nga fa fekk benn waaye boo xamante ni dañ koo yeew ponkal comme ni ko yonent bi doon melalee sallallahu alayhi wa sallam nee na bi ñettee ñu fekk ñu ngi ko yeew ñaari loxo yi lii lañ ko def ak ko nii ci mbagg bi seene seene ndigg ñu ko xoolee mu taxaw ak ni mu li ko tàmbalee ci ba ci oom yi ba ci tànk yi weñ la ko yàlla defalee feer la li ko tàmbalee ci oom yi ba ca tànk yi ca suuf weñ la ko yàlla defaree ñaari loxo yi dañ koo yëkkati ak ci mbagg mi daal di koy yeew mu ngi taxaw benn place nee na bi ñu ko waar yow de toskare mu ni man maay kan moom mënta laaj ndax bala ngeen fay jógee di ngeen ma waaye yéen yéen laay laaj yéen ay ñu ne ko ñun day ci arab yi lañ bokk dañoo duggoon ci gaal gi wax euh, xabaar bam fam jaar ba yegg si dajeeg ji mu ne leen fii ñu dugg fi daje feeg yow waa ji commencé di leen laaj mu ni waaw dama leen di laaj ni leen ndax lii nga xamante ni moom mooy Euh, Buhayra Tabariya muy benn île benn géej goo xamante ni mi ngi nekk ci côté yi wala ba côté yi Palestine ndax mi ngi am ndox ba léegi gars yi ni ko waaw ma ngay am ndox ba léegi waa ji ne leen des na tuuti ndox ma commencé ngiis allahu akbar bi ñu def gëstu bi dem nañ ba gis benn borom xam-xam buy wax ci benn téeréem mu ni am na benn journal bu ay boromi xam-xam fësaloon jamono bi ci al alam al arabi di wane ni bu xayra sabariya bii waa ji waxoon leen ni leen mi ngi waaj a wàññeeku nee na biñ nattee ndox mi nam meloon ak nam meloon ci jamono jooja wàññeeku gi sax dafa jéggi dayoo wallahi lii moom bu fekkente ni lu wér la te lu ñu wasaar la ci àddina bi kon day nekk alaama guy gën a dëggal qurbu xuruji masiix dajjal mu laaj leen an naxli baytaana maanaam ak barab boo xam ne mu ngi ci côté Palestine wala am ñu ni Cham ndax barab boobu ma ngay am ndox ba léegi wala gàncax ya fa mu nekk ak tàndarma yi ña ngay meññi gaa yi ni ko tàndarma yaa ngay meññ nam meloon ba tey mu ni des na tuuti rek meñ meññat mu laaj leen benn bëtëb ndox bu ñu tuddee aynu zuxar bëtëb ndox la boo xamante ni mu ngi ci côté yi penku ci Shaam muy côté yu Syrie yooyu ca penku yi jant ba ca dëkk yooyu la nekk bëtëb ndox la bu mën a ball ndox nit ñi dañ ca doon bay di ca jëfandikoo mu ne est ce ma ngay ball ndox ñu ne ko waaw waaw nit ñaa nga cay bay mu ne xattal aan nit ñaa nga cay bay ba léegi nee na bi mu leen laajee ñetti laaj yooyu mu ne waaw lan ngeen xam ci yonent bi yàlla yónni mu yonent mujjug jamono muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla yónni na ko ñu ne ko waaw yàlla yónni na ko ba mu génn màkk dem madina nu mu def ak aw xeetam ñu ne xeex naa ñoom ba gañal leen bi ñu waxee loolu masala dafa tiit mu ne awa kaana daalik loolu lépp am na fi ci diggante bi gars yi ko waaw génn na dem na màkk dem na madina xeex naa ak arab yi ba gañe na leen mu ne ndax loolu lépp nekk na fi ñu ne ko waaw mu ne ni ñu def mu ne ñu bari topp nañ ko mu ne loolu de moo gën ca ñoom allahu akbar mbokk yi xoolal saay saay bu bon bi saay saay bu bon bi ñu ko waxee gars nañ mu ne loolu moom moo gën ca ñoom ñu topp Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi loolu amee mu ne wa inni muxbirukum anni léegi nag man maa xamal maay kan mu ne inni ana almasih masihu dajjal mi ngeen di dégg mooy man tamimu daari nee na boobaa ngi taxaw te booba tuuba gu dugg ci lislaam nee na bi loolu amee mu inni uusab yuusaku an yuusak an yuzana lii fil xuruj na tuuti ñu jox ma ndigal ni ma génnal mbokk yi yàlla ndax des na ko jox ndigal uusak an yuzana lii dégg nga li ma wax dañ may jox ndigal pour ma génn kon kii dañ koy àtte yàlla danañ ko yeew danañ jël ay tànkam di ko defaree wey mu ñaaw ñaawaay bu mel li waa ji ñaaw déedéet hada rajul maxkumun alayh shaytaanun kaamilu shaytaana shaytaana su ma shaytaane mooy kii mu ne su ma joxee ndigal ma génn amul benn dëkk ci addina bi diglul allahu akbar amul benn dëkk ci addina bi xatta fii nga toog man yow dina teg tànk gayra makka wa tiba makka ak tiba kese fi bi xadis nag ñaari barab yooyu la cité waaye na ni makka ak tiba te tiba mooy madina makka madina baytul maqdis ak tuur ñeenti barab yi wér na ci yeneen xadis yéen yàlla ba ma sa daga dafa teg tànk waaye ma ni fii nekk ak foo xalaat ci àddina bi ci diir quarante jours masiixu dajjal dana fa teg tànkam moo tax ci xadis yii dina la ñëw saxaaba yi dañoo yéemu laaj ko waa nu mu gaawee mu ni gaawaay bi dafa mel ni taw bu ànd ak ngelaw di taw foo yaakaarul ci àddina bi dana fa teg tànk la si ñeenti barab yi mu ni su ma génnee amul benn barab lu dul dinaa fa teg sama tànk di yàq ci ñeent fukki guddi ba mu des Makka ak Toyiba mu ni Makka Madina li ko waral mooy saa ba jub malaaka day génn yor jaasi jub gudd caw ma ko te am na juróom-ñaari bunt moom màkka jamono jooju màkka jamono boobu day am juróom-ñaari bunt yu nit mën a jaar dugg waaye mu ni bunt bu ma yaakaar ni su ma ba jaaree dugg su boobaa damay fekk ay ab malaaka mu taxaw yore jaasi allahu akbar mbokk yi bokk na ci sunna mooy nit ki bu ko yàlla baaxee woon wala boog su mënoon sax su mënoon dëkk màkka ak madina wallahi lu am solo ndax Makka ak Madina dafay aar nit ki ci ay xubsa xabaa'is waaye dafay tax Masiix da jaglu waaye mbokk yi xamal ni suuf du mooy sell waaye ñene ca suuf sa ñooy sell loolu la Abu Darda waxoon Salman kaay dëkk si fii balaa Masiix da jaala ñëw mu ni ko jërul dëkk si ndax suuf du mooy sell ña fa dëkk yi sell suuf sa la leen boo déggee suuf si sell amul suuf su gën a sell si suuf sii ndax moom la yàlla wax ci alquran Masiixu Dajjaal bu ñëwee makka ak madina bu ko fekkee ay naafeq nu muy demee yent yàlla bee sarjuful madina salaata rajafaat madina suuf si day yëngatu ñett yëngatu comme madina ta jàll mënta dugg suuf si day baajew ñetti yoon su baajewoo ñetti yoon day mel ni peel buy tël naafeq yi génn allahu akbar yent yàlla da ngay jékki-jékki rek seen sëqab suuf rek bu tël deen ni génne ko madina nga jékki-jékki seen ak ñu tël di dàq ni nga xam ne noonu la sawar di dàqee salte yi ne ci wen gu yent yàlla bi neen noonu la madina di dàqee ak makka naafiq yi keroog mu tuddee ko yowmul xalaas mooy bisub selal setal makka ak madina kon masiixu dajjaal ba mu nettalee waa ji tamit mu dara nettalee yàlla bi ne waaw saxaaba yi est ce que du lii laa leen doon nettali ca makka ak madina saxaaba yëpp ñu ko ahanka ya rasulallah mu ne nettali masiixu dajjaal bi daf maa yéem wala nettali tamim daf maa yéem moo tax ma taxaw di leen ko nettaliwaat foofu laa yem waaye ci beneen riwaaya yent yàlla bi dafa joxañ mu ni ara innahu yaxruju haahuna qibala al mashriq fii fenkaay jant bi fa la ne fii lay génnee fii lay génnee fii lay génne ba ñu ñetti yoon tombam ñeenteel mooy nag da dajjaal nag li ko yàlla dénk ci ay fitna maa ngi doon wax melokaan yu sibu yi mu yore ak lanuy woote woo waaye xeeti kéemaane ki xarbaax yi nga xam ne nag yàlla dénk na ko ko yooyu yu bare bare bare la loola la àll insha allah danañ ko mottali ci xutba jële di ñëw bu fekkee soob na sunu borom subhanahu wa nu ngi ñaan yàlla mu boole ñu defal tawfiq defal nu aynel basira ba ñu xàmmee dëgg qabla xuruji masih dajjal yàlla yàlla dimbali ñu xàmmee dëgg xam ne lii mooy dëgg topp ko te sawar ci topp gan koy topp yàlla yàlla subhanahu wa taala xàmmee loo ñu neen ñu moytandiku ko te kontaan ci moytandiku gi ñu koy moytandiku rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina adaba annar rabbana la tuzig qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahhab اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا وفتنة الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين